waaw jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp ci am nañu mbégte àndaat ak yéen ci l'invité de rédaction comme ni ñu koy defee euh, tey jii nag euh, moom ak wuute ñu ñëw fi nga xam ne rek moom moo di euh, gàdd ngir waxtaane lu jëm ci ki nga xam ne rek moom la ñu toogal muy Serigne Fallou Alxuraan nekk koo xam ne rek ràññee nañ ko lool ndax heure bi le daaw toogoon nañ fi waxtaan def benn vidéo mu mel ni vidéo boobu itam am na lu bari loo xam ne jotoon na cee soxe ko moom Serigne Fallou Alxuraan mi nga xam ne moo bindoon ñaari kaamil ca biir bi nga nekkee ca Kaolack euh, mu nekk loo xam ne rek euh, bëriwul luñ koy gis bu fekkee ne sax am mas naa am euh, mu nekk liggéey bu am solo gannaaw ba mu ca génnee itam gisante na ak xalif général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké loolee lépp ak yeneen i kilifa yu nga xam ne itam jot na cee waxtaan ak ñoom loolee lépp dinañ ci ànd ak moom Serigne Fallou ñu ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyoog ñi lay topp ci 24actu point com. bisimilah barkeb alquran bisimilahi walasin haajuroo fillaahi min baxdi ma sullimoo lanu bawi anahum fi dunya hasanatan wala ajrul laaxirati akbaru lawkaanoo yaxlamuna alladina sabaroo wa ala rabbihim yatawakkaloona mbokki julli di asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa seen mbokkum daara sëriñ fàllu xule alxuraan moo leen di nuyu ci daara ji di daara sëriñ Touba muy béréb boo xamante ne dañu fi jàllale mbooleem lu am njariñ te ab jullit mën koo jariñoo muy 24 actu yàlla na ko yàlla barkeel di siyaar mbooleem xeetu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa ak fu ñu man di nekk ci àdduna bi di feeñal sama mbëgte di ñaanal cheikh muhammadul muntaxa suñ boroom yàggal ko fi lool ba mu àggale mbooleem naal yu mu naalal maam borom Touba nun taalu bi yëpp ñu ànd kook moom mu naalaat yeneen i naal barkeb alxuraan suñ borom sëñ Ousseynou day wax ci al alxuraan wala si na amanu wa amilu saalihaati la nuddu xila na wum fi saaliina mboolem ñi gëm yàlla tey jëf-jëf ju baax dinaa leen dugal boole leen ca ñu baax ña wala si na amanu wa amilu la nu bawi anawum minal janaati xurofan mboolem ñi gëm yàlla tey jëf-jëf ju baax dinaa tabaxal ci aljana ay étage te étage yu suñu borom wax nag ay njéen ni loolu bokkul ak suñu étage yi te jëf-jëf ju baax weesuwul ne téere bii di alxuraanul karim sëñ Tuubaa wax na ne lu ma am rek maa ngi ko amee ci alxuraan ba suñ borom moom loo ma ko malakanil xuraanu rabbul alamin waxaaduhu liyal amin wal amin sëñ Tuubaa nee na lam yab xafil xalqi man man lu bu barakati waxat ataani man la bu awrastukal kitaaba sëriñ tubaa rek la ñu mas gis ci ko ko wax malaktukal kitaaba laqantukal kitaaba suñ tubaa nee na alxuraan yërmande yàlla mi ngi ko yaakaari ci téere bi di alxuraan muy kitaabun bihi narju minallaahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa uxra minal karbi wax na itam moom xaadimu rasul seexuna seex ahmadul xadim bustaani kitaabullaahi nee na ab toolam mooy alxuraanul karim man nag surgëb sëñ tubaa laa boo xam ne ci tool bi rek laa sa war a xëy sama dund gépp ca tool ba laa koy def muy fas yéene bokk ca ña yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man ta'allama alxuraan wa moo tax suñu borom bi mu wàccee ab nattu ci man indi sabab ndax lépp loo gis li ku sababun lépp loo gis day am sabab suñ tubaa wax na ne euh, sababu xaybat ya ana laha araada an ana la minhu jaaha waan akoona saafian li xaw mi waan akoona xaadiman fi daw mi bi ko tubaab bi yóbbu loolu sabab la ngir mu war a liggéey yi liggéey boo xamante ne dana ràmm mboolem koo xamante ne maanaam bokk nga ci aw ñoñam ndax xuloo bu jumlatil lazina aflon li yatawajjahu wa rabbil muslimin moo tax bi nattu bi ñëwee ma xaw li gën a foor ci àdduna ci kaw suuf muy alxuraan ma ne fii ñu ma tëj ci kaw tooñaange ndax dugg ci oto benn biis bu def lu mat juróom-ñaar fukki nit yégoo tinoo ñu jekki-jekki rek wàcce la ca manoote say loxo dugal la ci oto polis yóbbu ca kaso ba tëj loolu moom tooñ mënu ko weesu te yàlla nee na wallaahu laa yuhibbu saalimiina mm-hmm. yàlla nee na bëgguma ñuy tooñ mm-hmm. te Sëriñ Tuubaa wax na ne alxaqu saabitun wa amal baatilu wa in halaa fa saanixun wa saafilu dëgg ak lu dul dëgg moom dëgg luy sax la waaye ay neen luñ ko kulóor kulóor ak luñ ko yëkkati yëkkati day mujj nërmeelu jëm suuf dëgg mooy li nga xamante ne moom mooy sax moo tax bi dogal bi ñëwee ma ne alxuraan day ñëpp maase nañ xam ne du dox ci ay caaxaan te it euh, li suñ borom naan xul laa yastawil xabisu wa tayib walaw ahjabaka kasratul xabisi lu bon ak lu baax moom duñu yem ba mukk kenn du ji tamaate di góob kaani dem ca tool yee ji ca sa toolub tamaate di ca gis benn doomu kaani doo ko doo ko def kuy def lu baax di wax lu baax di am lu baax kuy def lu bon di wax lu bon di am lu bon kuy def leneen di wax leneen di am leneen moo tax bi yàlla dogalee dogal bi ci man fa ñu ma tëjoon chambre 8 bu Kaolack ma am fa juróom-ñetti weer ak fukki fan ak ñeent bind fa ñaari kaamil alxuraan ak ay xaside yu bare bare bari ci xaside maam borom Tuubaa yi mokkale fa alxuraan daje fa ak ay saalum saalum yoo xamante ne ñenn ci ñoom ay natt moo dal ci seen kaw ndax kaso am na ñoo xamante ne du caaginu negga ñu fa nekk dañoo def moo tax ñu dugal leen fa am na ñoo xam ne suñu borom fa lay jaare escalier la ah, ab escalier la waaw seenu defaru fa jaare hmm. te yàlla kat xarit ba lay musibaal ngir dara jaal ko mbaate mooy ko mi baal te suñu borom wax na ci alxuraan hmm. am xasibtuma an tadxulul jannata wala ma yaatiku masalu lesin xalaw min xablikum masatumul basa wa dara wa sursiloo xata yaqulu rasul wala sin amono ma mahoo mata nasrullahi ala inna nasrallahi xaribun hmm. wax na itam am xasibtum an tadxulul janata wala ma yaxlamil laaw lisina jaadoo minkum wa yaxlama saabirina suñ borom wax na ci alxuraan ne wala nabluwannakum xataa naxlamal mujahidina minkum wa saabirina wa nabluwa axbaarakum yàlla tabaraka wa taala wax na ci alxuraan ne wala nabluwannakum bi shay'in min al xawfi wal joxi wa naqsin min al amwali wal anfusi wa samaraati wa basiri saabirina am nattu moom mënta ñàkk ci ab jullit nattu alalu jullit la tuuma alalu gor la sëñ bay jaxate nee na nattu bu ñëw léegi mu dem te bu demee balaa ki ndam yoo xam ne dootuñu dem dootuñu wéy dootuñu jeex nattu bu ñëw boo ko mu ñee am yi wudul xaaja kajee ayam wajee ñu di la sa jàmm ñëw sab coono jeex foofee ca béréb ba yàlla dimbale na ma ba ay boole fàggu naa fa mhm. lu baree bare bari te loola dana ñor ñi nga xamante ne mhm. ñooy sëriñu daara ak mboolem ku mas a jaar ci daar voilà dinañ ci dëkk euh, sëñ Fall incha allah euh, toogoon nañ fii ci jotaay bi nga waxoon na yow euh, buggoo dara sa yéene rek moom moo di alxuraan li nga doon sàkku itam moo di bërëb boo xam ne danga fay mën a jàngale alxuraan ngir ndaw ñi loole fan nga ci toll. jërëjëf sëriñ nu gannaaw bu ma jàngee alxuraan ca daara sëriñ Souhaïbou bu Mbàkke ba bind fa ñaari kaamil sama kaamil bu njëkk maa ngi ko jébal sëriñ Cheikh Awa Balla Mbàkke moom sëriñ Fallou sama ñaareelu kaamil ma jébbal ko Serigne Saliou Mbacké Abdoulahat Jaxate mi ngi fi yàlla na yàlla yàggal ko fi lool moo ma yóbbu woon ci Serigne Saliou ma jébbale sama ñaareelu kaamil sëriñ bi xool ko am ci mbégte lool ganaaw loolu nag ma tàmbale woon a jàngale fële ca Ndakaaru fa ñuy wax croisement Cheikh Béthio Thioune foofe la am ku ma jëloon koo xam ne poroxaan la ñu daje mu jël ma ma ko fay jàngaleel yàlla dogal nag ay weer yu néew laa fa def dem Casamance di yëngu ci wàllu commerce. ndekete yoo njàngale moom mee ma doon jàngale moom laa waroon a wéyal waaye lu mat ñaar fukki at maa ngi doon yëngu ci wàllu commerce googee waaye mel na ni na ma ca war a gisee sama bopp daal gisee wu ma ni gisee wu ma ci sama bopp. ginnaaw bi nag laa amoon yéene bëgg daara alxuraan lool waaye yàlla dogal na awma ko waaye yàlla ci dogalam ne bala ma laa jox daara faw nga jaar ci kaso maanaam faaw ma teg la am daal ba yàlla dogalee ma dugg ci kaso bi ba may bàyyi mooy bis bi sama ñaareelu kaamil bi noppee bi ma noppee subhaana la si asra ba rabbi ahadan dama ko doon folli ba ma bindee xula innama ana basaru mislukum yooha këyit gi jeex ma jël weneen këyit wu weex bind ci illaya innama ilahukum wa ilahun waahidun fa man kaan yarju liqaa rabbi falyamal amalan saalihan wala yusriku bi ibadati rabbihi ahadan fekk timis di waaj jot maa ngi koy ëf ngir bëgg mu wow ndax booba jant bi dugg na ca ma benn garde ñëwee ne ma Serigne Fallou ma ne ko Mbàkke mu ne ma doon naa la wax nga bindal ma kiis ngir sama doom ya ma ne ko dama xawoon a jàpp tuuti damaa ne woon ci sama ñaareelu kaamil bi waaye noppi na incha allah bu subaa bu ma xëyee bindal la ko mu ne ma yow kay ab xibaar laa indil bu neex yow moom bu ko yàlla dogalee tey Tuubaa ngay fanaani am na ay kayit yu ne greffe yoo xamante ne léegi ñu woo la ko dañu lay bàyyi nga ñibbi Tuubaa ma sant yàlla bu baax a baax ndax bis boobee ca la sama ñaareelu kaamil bi noppee fekk itam sama soxna am gone ñu téewoon ko hôpital mu fanaan fa ba mu xëyee ca ngoon googee la ñu ma bàyyi ca lañ ko bàyyi ba ma demee ba ca kër ga ab liir bu door a juddu laa fa fekk gis nga yàlla ak ay dogalam. nekk lu solo. bi ma génnee itam la ñu ma jox pàkk bu yaatu boo xamante ne vingt cinq sur la ca laa ko addiyaale alxuraanul karim mhm. bëgg ëllëg yowmal xiyaam bu nit ak jinne ak malaayika teewee. mu doon yiw woo xamante ne jullit ñëpp daan ci mën a jariñoo ndax béréb bu ñuy jàngalee alxuraan laa ko def sama wayjur moo ma ko jox ndax Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké moo ko ko joxoon mu yëkkati ko jox ma ko ma ne dama koy def daaray alxuraan loolee nag ba mu yaatoo gannaaw bu ñu defee bi mu tasaaro waaw gannaaw bu ma 24 actu dalale ba vidéo bi tasaaroo ca la ñu baax yëkkatee ay xéewal jox ma ma tàmbali daara ja tabax naa ko ba jamono bii may wax yéen yaakaar naa léegi ñu kuule ko daara ji fan la nekk. daara ja ma nga ca Kër Baylaat quartier bu ñuy wax Mbajaaneen. Mhm. foofee la daara yi Serigne Fallou nekk di pàkk bu ñu ko jox muy 25 sur 20 ma lebalaat ko alquran. Mhm. ngir di ci sàkku yiwu yàlla bëgg ëllëg bu ma fi jógee tamit. Mm, ñi nga xamante ne ñoo koy taxawee di ma ñaanal yi wa di ma fekk fa ma nekk ak bépp jullit boo xamante ne tàbbal na ci aw ñaxam. Mhm. daara joojee am na menn mbaar moo xamante ne fukki meetar la ak ñaar te bëgg naa ko kuule ca kaw yi itam doonaan meneen mbaar fépp ay dongay di fa jàngi alxuraan. mu mel ni am na ay defkatu lu baax yoo xam ne fekk nañ la ci liggéey bi aussi. waaw jërëjëf waaw bi ñu ma wanee TFM quartier général am na ku baax ku ma woo laaj ma woon tur moo nekk ci sama identité ma wax ko ko mu dugalal ma un million. kooku nag nanguwul ma xam aw turam. maa ngi koy ñaanal suñu borom fuulal ko ko defal ko ko kër ca aljana ak képp ku ci jàpp ku ci mas a joxe donte benn dërëm la. yàlla na loxo yàlla defal kër ci aljana ndax bu neexoon suñu boroom jullit bu nekk mën na ko may kër ci aljana kër goo xamante ne saal ba rek yaatuwaayam day day toll ni Afrique ndax ma saalik xale lay biensisin loolu jafewut yàlla te yàlla nee na ajjana yaatuwaay bi mi ngi mel ni yaatuwaayu suuf ak asamaaw saarion ila maxfiratin min rabbikum wa jannatin hardoa kan hardoa samawaat wala uhidat lil kafirina waaw mi ngi uhidat lil muttaqiina bokk maa ngi maa ngi jéggul uhidat lil muttaqiina waaw kon fi mu toll nii sëñ Fallou ngir euh, xam na waxtu bi li ci des bariwul euh, lan ngay sàkkuwaat euh, daara ji donte tàmbali nañu ko pour julit yi nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan. maa ngi am mbégte ci mbooleem jullit boo xamante ne bi nga yëgee nattu bi ma yàlla tegoon danga ma maa lool ba sa rongañ di rot di dal ci sab dënn maa ngi lay tuubal te ñaan sa yooyu yàlla na ko yàlla def caabi xéewal ëllëg yowmal xayaam bu nit ak jinne ak malaayika teewee yàlla nga bokk ca ñay ànd ak seexuna seex ahmadul xadim ñuy wéy di ànd ak yonente bi sallallahu alayhi di tàbbi aljana lu baax rek mooy li am solo kon nag mboolem daar yi nga xamante ne euh, daar yi nga xamante moom laa taxawal mboolem ñi nga xamante ne am nañu yéene jàpp ci ak ñi nga xamante ne ñooy yëkkati seen alal di ko ci def kenn ku ci nekk yàlla na la yàlla may kër ci aljana te àdduna ji yàlla boo fi am dara lu lay naqari maa ngi ñaan daal suñu borom boole ñu ca ñamuy wax yaa ibaadi laa xawfun aleykumul yawma wala antum tahsanuun allazina amanu bi ayatina wa kaanu muslimina udxulul jannata antum wa aswaajukum tuhbaroona yutafu alayhim bi shiafin min shiabin wa akwaabin wa fiha ma tasnahil anfusu wa talusul ahyun wa antum fiha xaalidoona wa tilkal jannatu lati oristumuha bi ma kuntum taalamoona lakum fiha faakihatun kasiratun wa minha taakuloona foofee dajanaa fa ay saalum saalum yoo xamante ne ñu yàlla may la ci wàllu boole loo fa jàngee ci boole. bu dee lamaa yi nekk ci alquran fukk lañu lamaa yatafajaru minhu lanhaaru lamaa yasaqaqu fa yaxruju minhu lmaawu lamaa yaxbitu min xasiyatillahi lamaa ataynakum min kitaabin wa hikmatin lamaa la yuwafiyanum rabbuka amaaluhum ak lamaa jamihum ladayna muhdaroona ak lamaa mataawul ayaata dunya ak lamaa tahkumoona ak lamaa yataxayaroona ak lamaa alayha haafisun bal gu ngeen gis ci alquran aksaruhum lay doon waaye wala kenn gu reela galaay reewalan faal naxu galaay nabilan faal wama jaxlawu laaw ilaa busra ñëw na yaari yoon ci alxuraan wama jaxlu laaw ilaa busra lëkkum wala tan may na xuloobukum bii wama nasru ilaa min hindillah ma galaay di saaru ali imran wama jaxlu ilaa busra wala nasru ilaa min hindillah ina la azizun hakimun ma nga ca lan faal moo tax maa ngi naan reela galaay reewalan faal naxu galaay nabilan faal maatu magum maata maata magum maa maa magum naara naara magul kenn afraytum yecca waaxe ah, ñeent lañu maatum noonu mooy taw bi maatam rusoona mooy am tofoom maa la si tasraboona mooy kaca topp naara la ti tooroona mooy caat moo tax ñu naan maatu magum maata maata magum maa maa magum naara naara magul kenn keef songu keef naayo keef jàll keef topp ca ñeent yoon képp lu ñëw ci alxuraan mooy fa isaa xalitum manasikakum ca baqara ak ay na namaa takkunoo yudri ku kum ca nisaa yi ak wayomal xiyaamati yakfuroona bi ki kum ca faatiri ak masalakukum fi saqara ca sooratul mu dasiri alxuraan téere la boo xamante ne bàyyiwul dara yaatu na lool lool boole yi nag dafa doon lu am solo loo xamante ne mag ñi ñaare danañ ko faral di indi ku mel ni Cheikh Amadou Tidiane Seck yàlla na yàlla yokk ay leeram di ku bëgg alxuraan doonoon xalifa bu cene ba dégg mu naan Euh, doolakum ñaar wëhë du làkk ñaar abi raaxoon a ñaar lanni raaxiboon a ñaar baqa doolakum ñaar mooy su ma laa tëjidoo lakum ñaar yoon la ñëw ci alxuraan su ma laa tëjidoo lakum wakkilan am amintum an yuhidukum fii taaratan uxra fa yursil aleykum xaasifan min ar-rihi fa yuxriqakum bima kafartum su ma laa tëjidoo lakum alayna bi tabian mooy ñaareel ba doo lakum ñaar wëhë mooy su ma laa tëjidoo lakum wakkilan ak su ma laa tëjidoo lakum alayna bi tabian doo lakk ñaar su ma laa tëjji du lakk ñaar yoon su ma laa tëjji du lakk xaley naa nasiran wa in kaadoo la yastafisoonaka mel ardi lu yoru jook minaa wisan laa yalbasoona xalfaka ilaa xalilan ak su ma laa tëjjoo lakk bi xaley naa wakkilan ilaa rahmatan min rabbika inna fadluhu kaana xalayka kabiran raaxiboona ñaar mooy sayutina law min fadlihi wa rusuli inna ilallahi raaxiban ak ansa rabbuna an yubaddilana xayran minna inna ila rabbina raaxiban baatu adxaasu na ñaar ci alxuraan xaaloo adxaas oxlaamin wa maa nahnu bi taawili laxlaami bi aamilina ak bal xaaloo alxaas oxlaamin ba liftiraahu booru wa shahirun alxuraan daal bàyyiwul dara waaw sama yéene daal mooy sax ci jàngale téere bi yàlla bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne xayrukum man ta'allama alxuraan wa allamahu gannaaw bu ma defee juróom-ñetti weer ci biir kaso bu Kaolack ak fukki fan ñeent bind fa ñaari kaamil bi ma génnee yëkkati nañu pàkk jox ma joxaat naa ko alxuraanul karim ñi ngi koy def daara daara jooju nag maa ngi ci woo mbokki yëpp képp koo xamante ne da ngaa saw ñàq tàbbi ci daaray alxuraan ndax nag lu waaye def ci lu baax boo demee fa suñ borom fekk ko fa mu yoomaatu xaddimoo li anfusikum min xayrin tajidoo hindallah maa ngi ci wow mboolem jullit yëpp rawatina mbokki taalibe yi képp koo xamante ne am nga yéene jokkoog man ndax classe yi bàcc jaxate yi nag dañoo xaw a bari am nañu baree bari ñoo xamante ne dañuy wax ne ñun ñooy association yi jàppale Sëriñ Fàllu alxuraan te ñooñu sax yàlla dogal na xawma leen kon daal man sama wàllu bopp képp koo xamante ne am nga yéene jot ma 78 369 06 58 wala 76 598 38 00 wala 77 525 85 87. ciment ak fer ak xeer ak lépp loo xamante ne jëm na ci wàllu euh, daara daal yittewoo nañu ko lool ndax béréb ba bérébu alxuraan la suñu sañoon. suñu borom dana ko àggale jàmm te it sëriñ Mamoun Bousso mii jiite ci jumaa ji nee na ma na nga rafet njort te xam ne dañ la doon liggéeyloo. soo mm-hmm. ma demee ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi fi neel sëñ Tuubaa nee na ma. na nga rafet njortu te sant yàlla foo toll te xam ne am nga taw tawfeex dem naa ba ci sëñ si dem sëñ Abdou Lahat sëñ Moussa am sëñ Abdou Khadir ba ci sëñ Cheikh am sëñ ak mbooleem ñu bare bari ci njabootu sëñ Touba gi sëñ Abdou Karim ak sëñ kenn ku ci nekk am na ci yéen kilifa yëpp kon daal sunu liggéey mooy sax ci euh, jàng ak jàngale ci xayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu daara jànga ca Touba quartier ba ñuy wax Mbadianeen mu doon béréb boo xamante ne addiyal nañ ko Serigne Touba te ci yaakaar ngërëmam ndax ngërëmal Serigne Touba mooy ngërëmal yàlla te suñ borom nee na bu ngeen ma sante rek ma gërëm leen wa in taskuroo yardahu lakum fi ma jeexale nag mooy di jéggale ndax jéggale dafa am solo suñ borom day wax ne wa in xaqabtum fa xaqiboo bi misli ma xaqatum bii buñ la tooñee day mën ngaa fayu waaye wala in sabartum la waxeerun li saabirina boo muñee te bale loola mooy li gën ci yow kon kama tuumaaloon ba tax ñu téema juróom-ñetti weer ak fukk génn ne réew mi waaye jégal naa ko ci xol bu sedd guyu voilà jërëjëf euh, ñi ngi koy sant baax di ko gërëm tey euh, ñu àndoon ak euh, Serigne Fall alxuraan ñëwaat ci liggéey bu am solo bi ginnaaw defoon nañu ko daaw file toog waxtaan ak moom donc loolu rek mooy rôle média ndax bi ñuy waxtaan ak moom daanaka da doon doog a génn gannaaw ba mu génnee nag ci wàllu kaso ba ak li nga xam ne rek jotoon na ko bind mu mel ni am na itam loo xam ne jotoon na cee topp muy daaray alxuraan ji nga xam ne jamono ji moom lay tabax te itam am am euh, fu mu toll euh, ñi ngi leen di sant baax di leen gërëm sant Modou Diouf mu nekkoon ci caméra bi feggoo nag soxna Asusi la euh, sant Serigne Cheikh ci montage bi di leen jox daje incha allah beneen jotaay l'invité de la rédaction ñu ànd ceeg yeneen i gam yu am solo jërë ngeen jëf